serigne bi serigne bi di fay di delo nuyo bi ak cant gi ndax yu bari waral na loolu te loolu démb la woon boba dara xewagut suñu borom boole len ngeen and andu rafet waye ñu and andu bir ñom ñaar goo xam ne eh, goo xam ne gii. xëy na la fasul. na la fasul. la fasul. la moo ëpp li fes. moo ëpp li nëbb moo ëpp li feeñ. li te lool lépp nag. sëriñ bi xam na ko. sëriñ bi xam na ko. bàyyi ko xel bàyyi eh, li ci am solo lépp nag. li ci am solo lépp nag. du jëmm yi. du jàpp ko ko sëriñ bi jàpp. di ko ñaanal di ko ñaanal yéene ko jàmm yéene di ko taxaw di ko taxaw ci zaahir ak ci baatin loolu moo ëpp solo te sëriñ bi loolu mi ngi ci su ngeen ko déggee mi ngi ci su ngeen ko déggul mi ngi ci ndax nitu yàlla ndax nitu yàlla suñu borom bu ko dénkee jamono suñu borom bu ko dénkee jamono képp ku yàlla liggéeyloo ci ci jamono jooju képp ku yàlla liggéeyloo ci jamono jooju dalay tungoo dalay tungoom ndax day xam lu lu sooxe ndax day xam ne lu sooxe day mel ni liggéey moo sooxe lu baxit day delu ci ab liggéeyam kon serigne bi ba président wi yenem amé mu am lim bëgg liggéey ba fekk day delu ci serigne bi kon serigne bi dina ko jappalé dina ko ñaanal dina ko téy né lool dal moy cadeau yi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp alaykum wa rahmatullah may waxit président may waxit président lu mu mën ci jappalé ma ñoo ñi lu mu mën ci jappalé ma ñoo ñi gàmmug daaw. maag président Abdou Mbow président Abdou Mbow mii. ñoo ko bokk bu bët set. defe naa wax na ko ci baas ba. na jàppale xale yi. na jàppale xale yi. wutal leen liggéey. ndax réew moo xam ne. ndax réew moo xam ne. pour cent. ci réew mi ci réew mi. ay jeunes lañu. ay jeunes ne mbooloo nga fa. fu ne mbooloo nga fa. bu fa jeunes yu bëriwul. bu fa bu fa jeunes mbooloo nekku fa. ndax ñooy réew mi. ndax ñooy réew mi. te mi. kon ni mu def fu baree bari mu dugal fa loxoom fu baree bari mu dugal fa loxoom gën a dugal loxoom na gën a dugal loxoom ci gone yi ci gone yi am na nu rafet njort sax ne am na nu sax ne mi ngi ci mi ngi ci loolu bokk na ci kon loolu bokk na ci li may sàkk li muy sàkk bu dee wàllu tawat ji bu dee wàllu tawat ji ah ñu ngi am yaakaar ah ñu ngi am yaakaar ni yàlla mi ñu ko teg ni yàlla mi ñu ko teg dana nu ko teggin dana nu ko teggin ay jaam nag bu ñu dox ba yàgg. ay jaam nag bu ñuy dox ba yàgg. seen borom dana leen nemmiku. seen borom dana leen nemmiku. ba xam ña nga fa wala déet. ba xam ña nga fa wala déet. xaw koo yëngalaat tuuti. xaw koo yëngalaat tuuti. xaw koo ruux xaw koo ruux tuuti. loolu la yàlla tollu ñun. loolu la yàlla tollu ñun. muy tawat ji muy tawat ji. lu yàgg am la ba àddina sosoo. lu yàgg am la ba àddina sosoo. muy soriyante. muy soriyante. suñu boroom indi ko. suñu borom indi ko. waaye musta am mukk nag ci kaw suuf. waaye musta am mukk ci kaw suuf. du waa jamono boobu yi. du waa jamono boobu yi. ñoo dem bay yàq seen jamono. ñoo dem bay yàq seen jamono. yàq jaww ji yàq jaww ji. yàlla seen bopp yi. yàlla ci boppam. daal di leen cay teg ay natt. daal di leen ci teg ay natt. yàq seen bopp mooy. yàq seen bopp mooy. ñàkk gëm yàlla. ñàkk gëm yàlla. te yàlla it bu ñuy dox ba yàgg. te yàlla it bu ñuy dox ba yàgg. dañuy delluwaat ci moom. dañuy delluwaat ci moom. te loolu. te loolu. misaal mu gàtt la ci man. misaal mu gàtt la ci man. di tawat ji amee ak tey. di tawat ji amee ba tey. danoo delluwaat danoo delluwaat ci garab bu yàgg danoo ci garab bu bu ñuy wax ni waa bu ñuy wax ni waa ñu ne moo man dara ñu ne moo man dara ku mën a ci ni waa ku mën a delluwaat ci ni waa Kinin ci yàlla